alayhi wa di leen nuyu di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi di leen ziyaara muy bisub ajjuma fukki fan ak benn ci maamu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak ñett ci gàddaayu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa di sof rek sunu kàddu ci kàddu yi nga xam ne jaar na fi ci fan yi jàll yëngu-yëngu yi nga xam ne xew na ci réew mi te ñi fi jaar ci fan yi wax ci lu doy sëkk ñi fi jaar ci fan yi bayaan bi nga xam ne moom la kilifa gu tedd gi def ñu leeral ko saraa ko ba ñépp xam ko loola doy na sëkk mi ngi tolloog ñi nga xam ne ñooy nooni lislaam fu nekk jaar nañu fa ngir noot lislaam wàllu koom-koom jaar nañu fa wàllu ngànnaay jaar nañu fa wàllu jàng ak jàngale ak yar jaar nañu fa wàllu communication jaar nañu ca ñoom daal fu xam jaar nañu fa ngir bëgg nappaaje lislaam lenn rek moo leen dese mooy pas-pasi lislaam yi ñu fexe ba nappaaje ko ba kenn dootu ko jàpp te nit ki su amul pas-pas nag su boobaa day yomba noot foo ko jaarloo mu jaar fa loo ko xolloo moom rek lay xool loolu tax ñu ñëw fekk yi nga xam ne dafa leer naññ ci alquran leer naññ ci sunna leer naññ ci mbindum sëriñ bi ñu bëgg koo nappaaje su ëllëgee nit ñi duñu am jomb-jomb duñu am lu ñuy rus du ñu am lu ñuy ragal nit ki nag su amul lu muy jomb amul lu muy rus amut lu muy ragal su boobaa foo ko bëgg a jaarloo da nga ko fa mën a jaarloo ida fas tastaxi fasna ma chita te loolu am na lu ko jiitu jigéen ñi nga xam ne ñooy genn wàllu àdduna ñoo ëpp sax ci àdduna ci ñoom lañ njëkk a jaar di wax ne dañuy leen a noot di wax ne kenn joxu leen seeni àq di wax ne da ngeen a war a laxasaayu gemb fas yéenee bëre ba ñu teg leen seen place di wax ne seeni sañsañ ak seeni yelleef dañu leen ko xañ dañoo bëgg bu ñu juddoo ba ba ñuy dugg bàmmeel dañuy nekk ci ron kilifteef du ñu moom seen bopp tax na ba la xew ci réewi tubaab yi di law di dugg ci réewi lislaam yi ñu wax ne jigéen sañ naa takk say maye boppam su ko neexee mu takk su ko neexee mu tekki jigéen su bëggee tànkam diis mu diis waaye bu ko soobee tànkam du diis jigéen bu tànkam diisee te neexu ko su ko bëggee yibal mën na ko ayibal ak nag yeneen ak yeneen yoo xam ne jataay bi da ko laajul moo tax tey ñu bëgg a ñëw leeral ne jigéen ñiñ doon wax ne na ngeen laxasaayu laaj seeni yelleef ba ko ko lislaam joxe yàgg na li ko lislaam jox sax moo ëpp ñoom li ñuy laaj ndaxte sunu borom subhanahu wa dafa teel xamle ne jigéen ak góor ñoo bokk fu ñu soqi ko mu yaa yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida sunu maam aadama ak sunu maam awa sunu boroom xamle ne dañoo juumoon ndax fa ak fa akala minha la wax waaye ba ñu demee ba seen xel delsi dañ ne qaala rabbana wa zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin kon jigéen ak góor yàgg nañoo ànd euh, bu leen xelum doom aadama jàppee ba ñu juumit seen pas-pas tax ñu wëlbatiki dellu ci yàlla tuubal yàlla jigéen mi ñuy wax ne joxuñ ko ay yelleefam ak àqam sunu borom nee na moo góor ñoo yem fa kanam yàlla ku ci def lu baax sunu borom fay la ko ku ci def ab safaan ci tuubootam da daje ak sunu borom wa man yaamal min alsaalihaati min dakarin aw unsa wa huwa mumin fa ulaika yadxuluuna aljannata wala yuzlamuuna naqira kon góor su defee lu baax wala jigéen def lu baax te pas-pas lal jëf ja su ëllëgee sunu borom dana ko teral ca àjjana te kenn du ko tooñ lu tool ni naqiir jigéen sunu sunu yonantu bu tedd bi nee na nit ku tedd rek mooy teral jigéen waaye ku sew rek mooy doyodil jigéen ma akrama nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa laim kon ku tedd rek mo koy teral waaye ku sew rek moo koy doyodil ñoom jigéen ñi suñ borom uh, wax na ne bu dee sa waajur am na loo xam ne moo la war ci moom xadis nee na bu dee sab jigéen am na lu war ci moom bu dee soxna am na la war ci ci moom bu dee doom am na lu war ci moom te defe naa ne jigéen joo gis rek faaw mu doon lenn ci yooyu benn muy sa waajur walla nga war koo xool batu tu jur kooka alquran nee na wa wassayna al insaana bi walidayhi ixsaana yàlla dafa dénk nit mu fonk ay way juram kon nag képp kuy say way jur da ko war a fonk képp koo xam ne bët boobu nga koy xoolit da ko war a fonk bu dee sab jigéen xadis fa nee na innama nisaau shaqaiqu rijal nee na jigéen ñi góor ñi ñooy seeni càmmiñ kon koo xam ne sab jigéen la da ko war a mat càmmiñ koo xam ne it mook sab jigéen ñooy ay nattangoo da nga ko war a xool batub càmmiñ di ko taxawu na càmmiñ war a taxawoo ab jigéenam bu dee soxna si nga dëkkoo moom it dafa am lu war ci moom ndax de ku tedd ka nee na ki gën ci waa këram moo gën ci yéen xayrukum xayrukum li ahli kon nit ki dafa war a fexe ba bokk ca ña gën te ki gën ci wa waa waa këram moo gën ci yéen wa ana xayrukum li ahli man nag maa leen gën ndax maa gën ci sama waa kër kon gis nga bu dee way jur alquran nee na na ko teral xadis nee na aljannatu taxta aqdaamil ummahaat àjjana soo ko dee sàkku na ko sàkkoo ci sa waajur moo tax ku tedd ka daana fab kaalaam di ko lalal soxna xalimatu saadiya daana ko lalal tam ay bàjjanam ndax cër bi leen yàlla jox moom la leen di jox kon bu dee teraanga ju rëy moo war sa diggante ak moom bu dee sa jigéen teraanga ju rëy moo war sa diggante moom bu dee soxna itam teraanga ju rëy moo war sa diggante moom wax na sax ci ab xadis ne àdduna ay xéewal la ak wàccaay la ca gën nag ca wàccaay woowee mooy soxna su baax soo xam ne boo ko xoolee sa xol sedd soo ko wanee ginnaaw sam xel dal xayru mataai dunya almaratu saaliha in nazarta ilayha sarratka wa in xibta anha xafidatka fi nafsi fi wa fi malik koo xam ne boo ko xoolee sab xool sedd soo ko wanee ginnaaw sam xel dal nee na dara gënu ko ci àdduna moo tax bu ñuy jàng ci téere yi ku tedd ki ñu gis mu cay ñaan di santaane ñu cay ñaan ku mel noonu wa zawjatan saalihatan tuinu ala tuqaa wal birri yaa muinu ak wa zawjat wa zawjatan saluhat bi diini yallaahu kon ki nga xam ne mooy sa dëkkandoo di sa wéttal wa ca gën nag mooy wa nga xam ne day wu baax ànd ak yow di jaamu yàlla di jëfe ndigal di bàyyi tere sunu borom kooku ku ko am yaakaar nañ ca moom ne njaboot gu baax lay doon habli bi bi jaahihi waluudan munjiba talidu saalihan aliya martaba wal tajala wal tajalanha ya ilahi saaliha talidu man yaamalu baadi saaliha kon jigéen mën naa doon sa wayjur nga war koo fonk mën naa doon sab jigéen nga war koo fonk mën naa doon sa soxna nga war koo jàpp fonk ko waaye mën naa doon sa doom nga war koo fonk ndax bu dee sa doom ku tedd ka nee na amul benn jullit bu yàlla jox ñaari doom yu jigéen nga fonk leen taxawu leen la lislaam santaane ca doom ju jigéen nga def ko nee na ñoom ñaar ñooñee bala ñoo tàggoog yow dañ lay tàbbal àjjana kon doom ju jigéen mën naa tàbbal waajuram àjjana maa min muslimin lahu bintaani fa yuxsinu ilayhima maa saxibataahu aw saxibahuma illa wa adxalataahu aljanna kon gis nga doom bu jigéen nga taxawu ko ci na ko lislaam santaane balaa tàggoog yow dalay tàbbal àjjana kon ñi nga xam ne dañ doon topp ci jigéen ñi naa leen amu leen cër da ngeen a war a yewu te su ngeen wa da ngeen war a yeewu te su ngeen yeewoo yeewiku yeewu ba noppi nag yeewiku ndax tënk yi ñu leen tënk ñooñu xamuñu diine xamuñu ne diine bu dee ndey da koo teral bu dee jigéen da koo teral bu dee soxna da koo teral bu dee doom da koo jox cër kon mën ngaa jaamu yàlla te jaaree ko ci ñoom lislaam jox jigéen ñi ñu am sañ-sañu lu ñu bëgg a jëf ci seen bopp te lislaam ba ñu ko ñu def loola ku leen bëgg a may koo xam ne sax ànduñ ca bu leen neexee ñu gàntu ndaxte xadis nee na jigéen ju mos a dem kër balañ koo jox keneen nañ ko laaj ba mu wax la nekk ci moom bu dee gone gu musta dem kërit nañ ko tàggu ba mu joxe baatam al ayyimu tustamaru wala tunkaxul bikru xat xata tustadan kon gis nga ne jox nañ ko sañ-sañ ci boppam am na ku baayam mosa may boroom kër mu gantu ba mu gàntoo nag ñëw ci ku tedd ka alayhi salaatu wasalaam ne ko sama baay dama may ab jarabaatam wala mbokkam mu ko jege te ànduma ca mu ne ko yaa moom sa bopp soo ca àndee muy noona soo ca àndulit du mën a sotti mu ne ko léegi ànd naa ci ñu ne ko nooy waxee ne ànduma ci ba yàgg nga ne ànd naa ci mu ne dama bëggoon a xam rek ndax jigéen sañ na ci boppam dara walakin aratu an taalama nisaau an laysa lil abai min al amri shay dama bëgg jigéen ñi xam ne am nañu sañ-sañ ci seen bopp kon loolu la lislaam jàngale kon gone gu jigéen kenn du wañ loxoom di ko dugal fu mu bëggutu dugg soo ko defee amaana doo ci am ndam kon nag ñi wax ne jigéen amuñu cër fekk na lislaam jox leen cër bu yàgg jigéen tam jox nañ ko cir bu tolloo ci xamlu dañ ko war a xamal ndaw dañu koy xamal dañ koy jàngal dañu koy yar moo tax ngeen ji mbindeef daan jàngale te jàngale rek moo ko fi andi innama bu'istu mualliman amoon na bis boo xam ne da ko jagleloon jigéen ñi dafa am bis boo xam ne jigéen ñi la ko joxoon ñoom rek ñooy agsi ci moom mu de leen jàngal seen diine te xam ngeen ne ku baax ki nga xam ne moom moom la daan roy moom itam noonu la defoon amoon na bis yoo xam ne da koo jagleel góor ñi waaye amoon na bis yu mu jagleel jigéen ñi ñuy ñëw ci moom muy lijjanti seeni soxla di leen jàngal di leen ñaanal kon nag ku wax na lislaam dafa woyofal njàngum jigéen yow yaa xamul te gis nañu sax ne lu bari ci nit ñi bu jigéen de jàng ba tollu fenn fe rek dañ naan doy na jigéen moom na jàng liggéey te ñu maye ko waaye njàngum jigéen amul solo aha kay am solo ni mu waree góor rek noonu la ko ware wax nañ ne ku baax kii mos naa laaj nit ne ko ana sa doom ju juddoon barab sàngam ci waxtu sàngam mu ne ko mi ngi fede bu doon góor day mat naa dem ca daara mu ne ko bi muy jigéen nag daal ne ko ñoo bokk atte moo tax al imaamu Shafii nga xam ne fu ne dem na fa de sàkku xam-xam amoon na ci ay sëriñam koo xam ne jigéen la woon muy soxna Nafisatu bintul Xusayn al imaamul Buxaari nga xam ne fu ne dem na fa sàkku xam-xam wax nañ ne li ko jàngal ci ay soxna mat nañu juróom-ñetti fukk kon daana xam lu ci ay góor waaye daana sàkku xam-xam ci ay jigéen am na soxna suñu wax ummu Shifa daana jàngal jigéen ñi nekk ci biir kër sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax hisham ibn urwa nee na musumaa gis ku gën a dégg fiq wala xam-xamub faj wala xam-xamub way ku ko dàq soxna Aïcha nee na musuma koo gis